Parce que tu dis, la terre est proche proximité. di maa ngi sant vraiment di kontaan bu ci la la caravane d'aujourd'hui organisée par la grande coalition du Sénégal Nous ngi remercier toute la population de Guinaw Rail remercier les les jeunes remercier tout le monde kontaan bu baax a baax. moom la ñu jaajëf sama gars yi jaajëf ñu ngi kontaan bu baax di remercier ñëpp la grande mobilisation vive la grande coalition Wallu vive le Sénégal merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. ginnaaw raay coalition wàllu mu ngi def tey caravane waaye ba ñu génnee ñëpp xam nañ ne bii mooy bu wóor bi bii mooy bu baax bi kon nag ñu leen di ñaan na ñëpp voteel le maire Ablaye Diop ndax ku xam Aminata Diallo ci biir ginnaaw xam ne dama doon nekk candidat mais ma nekk conseiller municipal Ablaye Diop jiima loo xam ne mënatuma jàkkaarloo ak moom ndax ci ngoram ndax ci yaram ndax ci partage gestion nous sommes comptables de sa gestion moo tax tey ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam xàccandoo doorandoo ba am ndam ci ginnaaw kon nag bii mooy bulletin bu baax bi gor baa ngi nii bii mooy bulletin bu baax bi koy voté na nga voté bulletin bi waa dafa am solo trop jërëjëf merci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan si ñëpp di wax na na ñëpp voté coalition wallu nañu voté bulletin bu baax baa ngi nii ma yor sama loxo bu ko kenn jaawale ndax roy du nduroog piir ñu bëri ñu ngi ñuy bëgg a toppandoo waaye ñun ñi nekk ay kilifa nekkoon ay responsable nekkoon ay tëddalis ñu bàyyi ko topp Ablaye Diop du suñu plaisir boobu c'est pour l'intérêt de Guinaw Rail et pour les bénéfices de la population de Guinaw Rail moo tax ñu topp ko kon ndam rek ndam rek ndam rek jërëjëf Eh, Salam alaikum. Diop ma ngi lay nuyu di la remercier ci initiative bi nga jël di def reportage bi waaw mais ku ne xam na man Ablaye Diop maak moom la 2009 ba tey participé naa ci trois local nekk conseil municipal mais vraiment pour gis lii rek xam c'est la grande coalition wàllu te adversaire amu fi dañuy baaxantal nii rek mënuñoo ñàkk a jóg il faut ñu jóg jënd parce que ay investir xam nga ni fii vraiment du sax du élection wax dëgg yàlla amu fi mais di ñaan yàlla ñu terminer ko ci jàmm ak salaam xam naa ne ndam li ñëw na ba pare peut nag dañoo defoon tey démonstration de force pour wane sunu doole ak mbooloo mi ànd ak ñun xam ni incha allah dimanche di ñëw heure bii day fekk tàggoo ñoom bu yàgg. ñu jall ci lenen yal nañ yalla defal jamm Dugu Baawo ablay jo Thank you. Bandit. Much